mbokkee ndax sa ci safoo setaan AGT News dalee nag jàmm Omar Youm di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar àdduna ci li nga xam ne mooy démission bu Mimi Touré ci groupe parlementaire ba moom nag nee na ñu ngi respecté bu baax a baax la nga xam ne moo di ab choix wam waaye nag bu fekkente ne moom choix ba nga xam ne def na ko dafay impacté bu baax a baax ca la nga xam ne moom mooy déroulement wu assemblée nationale ba dinañ ko xoolaat bu baax ndax nag duñ ko bàyyi benn yoon muy def loo xam ne dafay salfaañee la nga xam ne mooy tax mbir ma mën a dox ndax ñoom ne nañ Mimi Touré bu fekkente ne dafa démissionné ci APR démissionné ci Benno Bokk Yaakaar loolu dafay wane ne moom bokkatul ca parti ba nga xam ne moom moo ko dugal ca biir assemblée nationale ba ak ca coalition ba te bu boobaa ñoom dinañ jël ay dispositions yu koy permettre moom ñu mën ko fa jëlee waaye itam nee na ñi nga xam ne ñoo di député yi faree ci bi ak non inscrit yëpp ñu ngi leen ñaan à ce que ñu bañ lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum votu budget ndax loole mooy tax ñu mën na régler jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund jamono ji ñu toll nii jëm ci wàllum ndox wàllum électricité santé éducation ak bépp secteur rek boo xam ne sénégalais liñ cee bëgg di dund lu bees ndax jafe-jafe yi bëri na lool te métti na lool loolee moo waral kii di Omar Youm di woo à ce que ñoom ñëpp ñi faree ci biir assemblée nationale ñu daal di liggéey liggéey bu ama am solo buy tax sénégalais yi daal di nekk ci noflaay mbokk yi ndax noo di safoo seetaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su na ngeen di am ay xibaar yu wér te